côté. waaw euh, njëkk sant yàlla bi ñu mayee ñu fekke li euh, may ñu it euh, ñu jot def campagne mu ci ay def ko ci Sénégal yëpp di gërëm di sant Sénégalais ci teel ni ñu teeroo un peu partout au Sénégal nga xam ne vous l'avez tous direct muy loo xam ne defe naa ci élection législative du nga doon romb trop ci dëkk kon nag dafa yokk suñu yaakaar ni que yi euh, wan nañu gannaaw régime bi fi ne te euh, dogu nañu changé waaye changement boobu pour mu am il faut que Sénégalais yi génn voté wax naa ko ci campagne bi yëpp surtout jeunes yi nga xam ne boo dem nu mu tuuti tuuti cinq mille dix mille jeunes dinañ topp sa caravane sur quatre kilomètres mais neen lii rek baax na waaye am na lu ko gën mooy la mu dugg ci biir urne bi loolu moo fi jëlee régime bi régime bi euh, daw ci caravane du ko fi jëlee xeex ak gendarme policier du ko fi jëlee liy jëlee régime bi dëgg-dëgg fii mooy kenn ku fexe ba dugal bulletin ci urne bi pour sanctionner régime kon mu ngi profité la waat appel Sénégalais yëpp nag foofu mu waa Ziguinchor waaye waa Sénégal yëpp laay waxal fi mu toll nii parce que bi ñëw dañ ma ne li génn gum pour wote dafa néew trop. daanaka liñ ma jox ci ay lim sax bu dee loolu moo confirmé wu dina doon loo xam ne gëw ma ni ci histoire élection Sénégal mos naa faible noonu su dee rek Sénégal liñ ñu woon ci campagne bi dëgg la ci ñoom jàpp naa ne amul dara lu war a mën a justifier te duñu génn woote ba nga xam ne jég euh, six heures dix huit heures dinañu cinquante wala soixante pour cent ci taux de participation ndax bu ñu toogee seen kër yi loolu Macky Sall ak nguuram lay arrangé parce que ñoom ñi ñuy jox xaalis pour ñu wote ñoom dañuy génn waaye ñi nga xam ne ñoom euh, seen xalaat ak seen xel rek lañuy demee pour wote nga xam ne ñooy tànn ñu ci ëpp ñun lañuy ñuy tànn ñoom ñooy faral souvent di toog ci kër yi ak ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi moo tax ñu ne leen euh, ñun de li ñu waroon def def nañ ñu def lu weesu lii bu dee nag dañoo bëgg Macky Sall wéy wéy toog ci dëkk bi wala mu am sañ-sañ ne day def troisième mandat nga xam ne bu ko fi waxee ñi wote jiwul woon pour dagg loolu ñoom ñooy njëkk a génn dañuy dem xeexi moo tax ñu ne leen am na lu gën a yomb xeex mooy ñu fexe ba tey jii Macky Sall ñàkk assemblée te li koy andi mooy wote du toog ci kër yi di commenter du topp ci gannaaw caravane euh, amul lu ko mën a justifier du taw ndax ñun xamante nañu biir Sénégal kenn ku neñ ci ñun li ko yitteel dëgg-dëgg buy taw wala mu naaj ba tàng jëriñ di nga génn dem doxi ko kon fii la ñuy xamee fu mbir mi toll ci Sénégalais yi te am nañu yaakaar ni toll na leen fu sori gëm naa ni euh, vote bi day door rong defe naa ñu midi gëm naa ni fii ak 18 euh, heures fépp ci Sénégal ni ñi dinañ génn massivement voté ba ñu am taux de participation bu raw bi ñu amoon sax élection présidentielle loolu bu amee rek man gëm naa ni nguuru Macky Sall jeex na ba ciy profité nag ci wax bi ñu ko gisee nii ci centre de vote HLM bi. Euh, jàpp naa ni noonu lay demee fépp ci Sénégal ci tey dal ci jàmm parce que woote jarul xëccoo lépp luñ leen mën a may ñoom mooy xanaa li ñuy def ci koñ yi di jënd nit ñi waaye ci bureau de vote yi ak ci centre de vote yi am na loo xam ne di kenn dootu ko may kenn moo tax ñu ne leen am na luñu ñu njëkk boo xam ne kenn du ko nangu mooy li ñuy wax transfert d'électeurs wax nañ ko waxaat ko jox nañ ko constitution daw ci koñ bu nekk ñu fa dëkk xamante nañu ku ñu fi transport fii Ziguinchor am ay kaar yu bëri yu fi dugg démb si guddi man am na ñu ma ci xam ñoo xam ne dëkkuñu Ziguinchor xamuñu Ziguinchor élection locale lañ leen njëkk duy ci ay kaar andi leen booy am na ñu def ak ñoom di pa andiwaat nañ leen ku dëkkul ci koñ bi du vote ci koñ bi loolu moom na leer ñaareel bi mooy nañu fexe ba li code électoral wax nañ ko respecté bu ñu ne bulletin yi dem na ba manqué nañu fexe ba bulletin yi nekk jour bu manqué ku dem ba bulletin bu commencé wàññeeku nañ ko sololaat ba mu tolloog ñeneen mais du ñu nangu ñu naan rupture de budget am na parce que ñoom bu ñu demee ba jaaxle ba jàpp dañuy ñàkk dañuy saboté defoon nañ ko 2017 Touba waaye fii duñ ko fi def Touba duñ ko fa def Dakar duñ ko fa def feneen ci Sénégal duñ ko nangu ñetteel bi ma leen di wax mooy euh, intimidation yi yooyu ñuy essayé léegi laaj ngeen ma ci nasaraan ni dégg ngeen ay waxu nervi yi ñu dugal Ziguinchor fii nag suñu dëkk la te nañu xam ne ñoo ko moom bu soobee yàlla suñu yeboon eh, cent car ay nervi dugg leen Ziguinchor wax naa ni élection bi am na loo xam ne buñ ko defee tey lay mujj ñu def ko te koy def xam nañ ko waaye bu ko defee moom ci boppam dugg Ziguinchor dina ko jafee ndax suy def li muy def moom bañ ne ba du fanaan Ziguinchor dem ci guddi fanaanu kon lañuy def dañu foog nit ñi mënuñu ko régler waaye mën nañ ko régler te jël nañ toutes les dispositions mais ma anticiper si nii lu am rek seen responsabilité la parce que élection la ñu wax voté la situation situation bi nekk day jóg dem tranquillement bureau de vote voté dem ñibbi loolu jarul nervi jarul xuloo jarul ñi ñëpp suñu voté par dañuy dellu suñu kër noppalu ba ngoon ñu déglu résultat yi loolu warul am problème dañuy indi fii ay kaaru nervi di ñaan nguur gi nag quel soit lu am goon nañu accepté li nga xam ne mooy la décision des Sénégalais nañu respecté le verdict des urnes parce que sàcc élection dootuñu ko nangu Sénégal makisal na ko xam 16 mois moo ko defee ci réew mi mu takk bagaasam abal ñu na respecter li nga xam ne mooy la volonté des Sénégalais je vous remercie. voilà merci.